jaala shamsa diyaan wal xamara nuura wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa salama taslima mbokki julit yi mbokk yi ñiy teewlu ci waxtu wi ci seen rajo Manore FM ci Dakar ñu ngi leen di nuyu ñu leen di ziyaara di ñaan suñ borom subhaanahu wa taala ñun ñëpp yàlla na ñu boole defal jàmm yàlla na yàlla sàng ñu sutura yërëmal ñu suñuy way dawlu ñi nekk ci prison yi ci jamono yi yàlla na suñ borom subhaanahu wa taala génne leen ci béréb yooyu delloo si leen ci njaboot gi ba ñu mën a réinsérer ci jàmm ak salaam mbokk yi nga xamee ni ci waxtu wi ñu ngi xëy di wuti lu ñu jox njaboot gi ñoom it yal na yàlla yóbbu leen ci jàmm andiwaat leen ci jàmm ñu ànd ak nag tonu ñëpp ñi nga xamee ni ñu ngi ci buumi sëy yal na yàlla barkeel seeni sëy joxleen njaboot ju barkeel bi jaahi saydil wujudi wa alami shuhud ñi nga xamee ni ne ci waxtu wi ñu ngi ci ay jafe-jafe ak bu mënti nekk moo xam dañoo tëdd yaram bi sutante moo xam jafe-jafe liggéey la moo xam jafe bu jafe yi bu mënti nekk yàlla na buur bi subhaanahu wa teggi leen ko mbokki jullit yi xam ngeen ne ajuma bi mooy ajuma bi mujj ci weeru tabaski te loolu moom mooy tekki ne benn fan wala ñaari fan moom moo des ngir nag at mi ñu nekk nii muy junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeex ñu war a nag dugg ci at mu bees nga xamee ne loolu buñ ko waxee mooy weer wii di tam xarit dafay daldi di nag teru waxtu woo leen déggee ne weeru tam xarit teru na loolu mooy tekki ne at mu bees ci atu jullit yi daldi di nay door ndax weer yi comme nu ko buur bi subhaanahu wa taala waxee ci alquran fukk lañ ak ñaar ci weer yi nag bi ci jiitu mooy tam nga teg ci diggi gàmmu weeru gàmmu topp ci rakki gàmmu rakkaati gàmmu maamu koor ndayu koor baraxlu koor kori diggi tabaski ak weer wi nekk nii nag muy weeru tabaski nga xamee ne bu jeexee rek atu julli yi daldi di jeex ñu daal nag dooraat at mu bees mbokki jullit yi ñu ngi sant buur boobu nag subhaanahu wa moom mi nga xamee ne moo bind guddi bundi bëccëg benn bu ci nekk di wut sa moroom loolu nag li tax yàlla bind ko doomi aadama bi war na ci bàyyi xel di ci xalaat moo tax buur naa ne yuqallibu llaahu layla wa nahaara inna fi zalika li ibratan li ulil absaari bëccëg a ngi ñëw mu daal di jeex guddi ñëw bëccëg ñëwaat ñu dem bam yàgg jant bi so guddi ñëw ñu dem bam yàgg ñu ne benn semaine semaine yi di jeex bu yàggee ñu ne weer weer yi di romb bu yàggee ñu ne at at yi nag di romb di dem te nag doomi aadama yi am na ci ñoo xamee ni ca seen càggante ga ba léegi ñu ngi ci mbokk yi ñuy teewlu ci 89 point 4 Dakar gis nga doomi aadama lu mu yàgg-yàgg ci àddina ki ma ngay ñaan am téeméeri at ki naan bu ma yeggee ci juróom-ñett fukk yi bu ñu diw am na juróom-ñeent fukki at nga ne mos na te doomi adama nag lu dundam yàgg-yàgg su fekkee nag àndu ci woon ak ragal yàlla daanaka neen la gis nga yàllaa ngi nettali xisa yonent yàlla noox alayhi salaatu wassalaam ma ngay wax naan labitha fi qawmihi alfa sanatin ila xamsina aman junni at yu manki juróom fukk la def ci xeetam waaye ban njëriñ la dund ku tedd kii di ab yonente jëriñ xeetam wa lu dul pertement ndax ñàkk nañ koo gëm ñàkk ko topp weddi ko weddi yàlla nekk nag ci seen déngi-déngi ga nekk ci seen xërëm ya ak bokkaale suñ borom subhaanahu wa kon mbokk yi waxee at mu bees moom lañu ñu dëgmal jublu ko loolu mooy tekki ne doomi aadama dundam génn la ci bunt bi daldi duggaat nag ci beneen bunt loolu mooy tekki ne bëccëg yeeg guddi ñu ngi romb doomi aadama ci tukki la daal di nekk fan la jëm nag mooy këru dëgg ga fim mu jëm moom mooy alaaxira kon bis yi di romb bëccëg yi di romb loolu doomi aadama bu ne war na ci nag ut ab jàngat xool nag lan la liggéeyal suñu borom lan la jiital ci bàmmeelam lan la def ci lu baax lan la def lan la def mu ut nag ab jàngat bu rëy ci loolu mbokki jullit yi bu waxee ne ajjuma bi mooy ajjuma bii mujj ci at mi nekk nii loolu nag doomi aadama bi war naa xalaat xool nag bàyyi xel ne jëfam yi yim jëf ci at mi ñu nekk nii fii ak ay fan yu néew ñu daldi lem téere yooyu nag yóbbul ko suñ borom subhaanahu wa taala mu examiner nag xool téereem yooyu lan moo ci nekk ci ay julli lan moo ci nekk ci ay woor lan moo ci nekk ci dox mbokk lan moo ci nekk ci saraxe lan moo ci nekk ci eh, def lu baax waaye mu examine it beneen wàll ba mane ne mu examiner beneen wàll ba xool ñaata doomi aadama la ci jëw ñaata diggante la tas ñaata alalewu jaamur la lekk te nag àndul ak seen teyi bakkan ñaata nit la dóor marto ñaata nit la wor ñaata ñaata ci yu bon la daal di def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa daal ñuy wax ne wa atbai sayiat alxasana tamxuhaa doomi adama bi war nay xisaab boppam xool yu ñaawa yi mu daal di rëccu daal di tuub daal di baalu waaye nag mu tafa ci nag ay jëf yu rafet su yàggee rek mu daal di effacé wu moo tax euh, abu aboubacrin sadiq radiallahu anhu daanay wax ci xutbaam ne doomi aadama yi yéen a ngi xoole rek bëccëg yi di romb guddi yi di romb te kenn xamul kañ la ak fan la ak naka la te doomi aadama bu nekk am na ay bis yu la yàlla limitel ci sa dund boo yeggee ci dig boobu rek faw danga fii daal di jóge muy conseillé naan kon nag def leen lu baax nekk ci te sax ci ndax bis boobu buy ñëw mu daal di fekk doomi aadama bi mu ci yiw ci noonu Omar ibn Khattab radiallahu anhu moom it daana bëri lu muy wax ci ay xutbaam naan yaa ayuha nnaasu xaasibu anfusakum xabla an tuxaasabu wazinuha xabla an tuzanu daana bëril tam lu muy andi ay alquran bi naan yawma izin tuaraduna la taxfa minkum xaafiya Omar ibn Khattab radiallahu anhu daana wax ni yéen doomi aadama yi xisaab leen seen bopp lu njëkk ñu leen di xisaab del saytu sa bopp di xool li nga def ci lu baax li nga def ci lu bon dee ko saytu balaa bis di ñëw nag ñuy saytu say mbir fekk nag rëccu wees na daana wax naan di leen ut balance di peese seeni jëf yu rafet di ko lënkale it ak jëf yi nga xamee ne jëf yu ñaaw la jëf yi nga xamee ne suñ borom subhaanahu wa taala gërëmu ko lu njëkk nag bis di ñëw ñuy jël nag sa jëf yëpp di koy peese muy wax naan bis boobu nag mooy bis bi nga xamee ni suñ borom subhaanahu wa taala ku fa andi lu baax mu daal la koy fay ku fa andi it ab safaan mu daal di lay fay lu tollook loolu kon mbokki jullit yi mbokki ñiy teewlu ci seen rajo Manore FM 89 ci Dakar nañ ànd ñun ñëpp bàyyi xel ni buñ ne ay waxtu ay bis yu néew moom des ngir ñu dugg nag ci atu julit bu bees loolu mooy tekki ne kenn ku nekk ci ñun dundam daal dinay manqué at ñaata doomi aadama ñoo gane àddina ci at mi ñaata doomi aadama la ci suñ borom subhaanahu wa taala jël seen ruux ñi dem bàmmeel ñaata doomi aadama ñoo ci ñàkkoon daldi ci am ñaata doomi aadama ñoo ci amoon mujj ñàkk ñaata doomi aadama ñoo ci nguur woon mujj gi nguur ga jeex ñaata doomi aadama ñoo ci nguuruwaat loolu yëpp na ki koy def kooku kenn ki la mooy suñu borom subhanahu wa taala te kiy def loolu li ma wér te wóor mooy moom moo dàq saytu kuy saytu moo tax boo ne qul illahumma maalikal mulki tuutil mulka man tashaawu wa tanziul mulka mi man tashaawu wa tuizzu man tashaawu wa tuzilu man bi yaddikal xayru innaka ala kulli cheyin xadir tuuliju leyla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi leyli wa tuxriju lxaya min almayiti wa tuxriju lmayita min alxayi wa tarzuqu man tachaawu bi xeyri xisaab loolu boo demee ci surat numéro 3 muy suratu Ali Imran daa fekk ne mooy aaya ñaar fukk ak juróom ñaar moo tax doomi aadama bu ne war naa bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu ne màngal juróom balaa juróoma ñëw ma ne doomi aadama bu ne war naa bàyyi xel waxu ku dëggu kii di sallallahu alayhi wa sallam nga xamee ne buur bi moo wax ni moom de lu wax man maa ko wax maa yantiqu anil hawa in huwa ila waxyun yuuxa allamahu shadidul quwa kooku mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu waxoon ne fexeel ba màng juróom balaa juróomu ñëw mune fexeel ba sa ndaw gi nga liggéeyal ci suñ borom subhaanahu wa ndax ëllëg mag mën na laa dab ndax doomi aadama bi fi mu nekkee ndaw foofu day am kàttan day am pasteef mën a dogu waaye da ci mën nag sawar ci jaamu yàlla nim ko neexee ak nim ko bëggee bu mag xasee dugg yaram daal di bañ yax yi daal di fënax kàttan gi daal di jeex daanaka la nga bëggoon yëpp dootoo ko mënati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fexelit ba sa wér-gi-yaram bi nga jaamu ci suñ borom balaa nag wére ñëw ndax nit ki fi mu amee wér-gi-yaram dafay sawar lépp lu mu bëgg mën na ko def boo amee wér boo bëggee julli téeméeri rakka daf lay yomb soo bëggee woor daf lay yomb soo bëggee wër kaaba gi dafay yomb soo amee wér bépp jaamu yàlla booy def rekk boo ci amee ak dogu daf lay daldi yomb waaye bu wére di ñëwee la nga mënoon mënatoo ko daanaka wér ngay tal dootoo tal lu bari daanaka fu nekk ngi metti lu bari dootoo ko daal tal sallallahu alayhi wa sallam ne fexelit bi nga amee tuut nga jaamu ci yàlla bala ëllëg ñàkk daldi di ñëw xam nga nit eh, dina am alal mën cee jaamu yàlla mën cee def lu baax mu naan tey suba ginnaaw suba bisi di romb semaine yi di romb at yi di romb mu naan tey ak suba rek ba dee daal di taxaw nag wala ba dara ñëw yàq alal ga ñàkk dab ko muy ngéeju nag su ma yëgoon def nàngam su ma yëgoon def ci lii su ma yëgoon su ma yëgoon fekk dëgg-dëgg rëcc daal dinay wees moo tax bi ngay am alal ak lu mu tuuti tuuti fexeel nag nga jaamu ci suñ borom euh, subhaanahu wa waaye yonent bi ne fexeel fi nga amee temps nga jox ko suñ borom subhaanahu wa balaa ñàkk temps di lay daldi dugg xam nga doomi aadama bi su fekkee ni mu ngi am jot bu bëggee julli téeméeri rakka da koy yomb su bëggee woor da koy yomb su bëggee aji màkka da koy yomb su bëggee omra mu yomb ko lépp lu mu bëgg ci lu baax da koy daal di yomb ndax am na temps bis dina ñëw nag temps boobu nga daal di koy ñàkk moo xam par A ou par B ñàkk nga temps bi su boobaa nag jaamu yàlla daf lay daal di të yonent bi sallallahu alayhi daal di wax ni fexeel sa dund gi nga jox ko suñ borom subhaanahu wa balaa deew a ñëw te doomi aadama bi bu xësee dugg suuf nag su boobaa nag rëccu moom c'est trop xaaral yow yàlla ba ma mayoon ma delluwaat àddina comme na koy déggee ci alquran yàlla di ko nettali soo ma mayaatee ma dellu àddina lu toll ni une seconde la xefe xippi ma daal di ci weddi diw ak diw ak diw walla ma daldi ci jaamu yàlla ma daldi ci julli ma daldi ci sujuut ma daldi ci gëmaat doole delsi boo ma mayoon benn seconde ma dem delluwaat àddina daldi bàyyi bokkaale fekk c'est trop moo tax doomi aadama bi daal na fexe eh, ci ndawam mu jox ko suñu borom balaa mag a ñëw na fexe ci wéram mu jox ko suñu borom balaa wére dee ñëw na fexe li muy amas tuut mu def ko ci suñu borom balaa ñàkk ñëw na fexe ci jotam mu jox ko suñ borom balaa ñàkk jot ñëw na fexe it ci dundam mu jël dund gi jox ko suñu borom balaa a ñëw lii bu ko doomi aadama bi defee moom dafay am dund goo xamee ne dund gu texe la te sallallahu alayhi wa mu ngi waxaat ne iza maata insaanu inqataa amaluhu ila min salaasin sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafau bihi aw waladun saalihun yad'u lahu doomi aadama bi bu xasee atina léppam dafay daal di dog ba mu des nag euh, ñetti raakol yi nga xamee ni même bu duggee bàmmeel raakol yooyu dañuy continuer nag di ko jox yiw xam nga doomi aadama su gënee àddina dañ koy brancher raakol yu bari yu koy jox ay tiyaaba bu demee nag ba majeur ñu ubbi raakol yooyu nag tiyaaba bu mu def rek mu daal di yegg si fa moom bu génnee àddina raakol yooyu yëpp dañ koy tëjaat nag ba des ñetti raakol moo xam sadaka jaariya raakol boobu kenn du ko tëj muy nga gis ñuy tabax école nga participer ci walla nga tabax ko nga gis kat ñuy defar benn jardin boo xamee ni doomi aadama yi dinañ fa noppalu nga participer ci wala ñuy bënn teen nga participer ci wala dëkk bi kat amul courant nga fexe ba courant yegg si fii wala dëkk bi kat amuñu fuñ jullee amuñu morga nga fexe ba yooyu yegg si fa yu mel noonu wala ni di bindi téere nga ekkati sa alal daal di ciy def wala nga jënd ay téere tasaare ko ci ay daara tasaare ko ci ay doomi aadama wala yow nga bind téere walla nga jàngale ko wala nga jox ko nit mu jàng ko yooyu raakal boobu nag kenn du ko tëj dafay continuer di lay andi liiw ba yowmal xiyaamati wala nga am doom ju baax joo xamee ni jàngal nga ko diine xamal nga ko sharia wan nga ko yoonu dëgg mu nekk ci nag kooku tànk mu ngi dund suñ borom subhaanahu wa taala lay bindal ay tiyaaba kon mbokki jullit yi mbokk yi ñuy teewlu ci 89 point 4 ci Dakar nañ bàyyi xel ne fii ak ay fan yu néew yàlla dina wax malaaka yi at mi nga xamee ni moom la ñuy génn nañ lem suñ dossier yëpp daldi di ko koy andil buñ ko lemee nag andi ko fa moom mu daldi koy nag denc foo xamee ni ngelaw du ko romb dara du ko laal bañu ñu fekki ko nag mu jël téere yooyu daldi ñu koy jox ñu ngi ñaan ñun ñëpp yàlla nañu nangoo nag suñuy téere ci suñuy loxo ndeyjoor kon mbokk yi daal at mu bees ngoog ñu koy dëgmal nañ xool liñ def ci lu baax ñu gaawantu bëril ko ko ñu xoolit lañ def ci ay safaan ñu gaawantu baalu suñ borom daldi tuub dellu ginnaaw balaa nag ñuy lem suñ dossier yi di ko daldi yóbbu ñu bañ ko def nag ne at maa ngi jeex ñenn ñi ngay préparé ay taaja boon ñeneen ñaa ngay préparé wu fo ñeneen ñaa ngay préparé wu ci def lu bon dëgg-dëgg at buy jeex da nga war a réccu xam ne yaa ngi gën a jege dee ndax sa dund mu ngi wàññeeku ndax at wàññeeku na ci dund yi nga xamee ne moom la la suñ borom subhaanahu wa taala préparel loolu nag warul ànd ak fo warul ànd ak caaxaan warul ànd ak góor ñi di def yëfi jigéen jigéen ñi di def yëfi góor loolu dafa war a ànd ak doomi aadama bi daal di xam ne nag muy gën a jege dee mu gën a nag dëgmal suñ borom subhanahu wa taala mbokk yi yàlla na yàlla defal dégg ak topp defal leen ko yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne lii mooy dëgg ñun ñëpp ñu daal di koy topp mu woon ay caaxaan bañ xam ne lii caaxaan la ñun ñëpp ñu woon ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu